di leen ziar yéen ñiy suivre en rapport ñu war a ñëw yéen ci benn vidéo wax ci kàddu yi xam ne Naby Djellit yëkkati na ko ci match Sénégal ak Côte d'Ivoire ci niveau arbitre bi Naby Djellit moom dafa critiqué dafa contacté ki nga xam ne mooy arbitre bi gis ay fay yoo xam ne fay yu réeré la moom Naby Djellit defal defal na ci lu bëree bëree bëri gars yi du Naby Djellit du Naby Djellit dong ñu ci wax bëri na waaye dañ ñëw ci yi nga xam ne Naby Djellit wax na ko mais laata loolu dañuy wax yéen gan ci bile page ngeen abonné te ngeen bës li nga xam ne notification bi pour ngeen am suñu ay vidéo à temps réel fii ci sport sama wax na ci arbitre bi nga xam ne moo doon arbitre match Sénégal a Côte d'Ivoire boo xoolee nag Coupe d'Afrique dafa bari ay faay yoo xam ne yu kenn munul comprendre la ba tax na jëlee mu ñëw ci mu ne arbitre bi démb def na ay erreur arbitrage yoo xam ne nekko yu ndaw yu fatal la yu mag la mu ne benn rouge bi nga xam ne Sadio Mané woon na ko jël da bi jëlee ñëw na defaloo ci joxe ay argument yoo xam ne yu solide la mais nag euh, boobu noonu peut être rouge Sadio Mané boobu man d'accord woon naa ci waaye nag day gës sport yi dégg ay di ci wax na du rouge carton jaune la ndax dañ ne joueur buy taakale adversaire euh, bu joge ci civil bi fekk dafa taxaw directement dañ koy rouge mais bu dee dafa tëdd maanaam taxawul kenn du ko rouge ndax yi jàpp ne intention la boo xam ne tëyu ko mën naa am tànk bi moo glissé léegi nag Naby Diarra moom soo ko waxee moo ñu gën a xam football duñ ci dutee day jàpp ne ana fu teg waaw mais nag ak wax tamit ci penalty bi na penalty la dañ ko waroon a tiré